asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication li ko soxal tey jilee mooy élection tabu président de la république bi ñuy waajal suñu réew ci atum 2024 di ci xamle ne Sonko Karim ak Khalifa daal seen candidature yi xajam na lool ki jiite Pastef les patriotes di Ousmane Sonko tekki di maire bu Ziguinchor ginnaaw gi mu xamle ne samp na ak ndëndëm ngir 2024 bu yebu daal mu xam ne ne mbir mi du yomb dara li ko waral mooy ñi jiite réew mi dañ kaa bàyyi gët bu baax a baax bu weesoo Karim Meïssa Wade ak Khalifa Ababacar Sall rawatina nag ci digganteem a ji Sarr bi nga xam ne yoonu Sénégal daal jubloo gu ci muy loo xam ne nag dafa tegu ci bopp Ousmane Sonko Karim Meïssa Wade moom ak Khalifa Ababacar Sall bu ñu sukkandikoo suñu naataangoo bi fare ci avenue Bourguiba ab loi d'amnistie donc boo xam ne ci assemblée national la ñu koy wotee moo leen di mën a tax ñu amaat ay sañ-sañ ngir mën a bokk ci ay élection ci kàddu yu mu dénkoon waa RFI ak France 24 ci décembre bi ñu weesu président Macky Sall wane woon na ne ànd na bu baax a baax ak ne si wala boog jooyanti ay mbiru xalifa Ababacar Sall ak may sa Wade waaye nag ni mu ko waxee ba tey du lenn loo xam ne daal gis nañ ko ci te loolu bu amoon nag dina tax sax ñu am xar kanam bu bees ci ku gi ñu des si xar kanam bu yees boobu nga xam ne moom la waa Sud Quotidien di waxtaanee ak Le Soleil bi xam le ni ginnaaw gi ñu jógee ci élection bu député yi fanweeri fan ak benn ci weeru sulet li tukkee ci mbeñ gàcce gi nag li mu firndeel daal mooy ay parti politique yu yees ñoom ñoo ëpp ay député ci assemblée nationale ci kanam parti yi nga xam ne nag ñoo doon parti cosaan suñu réew ngir ngir ñi bokk ci longue politique bi mën a wéyal seen liggéey ne mu waree waa forum du justiciable ñoom seen sàkkuteef muy ñu amal ab loi d'amnistie Babacar Ba ak i ñoñam démb la ñu génn téere bi nga xam ne moo koy tënk bu ñu jógee ci wàllu politique ñu jàll ci soble si ak le soleil bi ñuy xamal ne direction bi ñu denk wàllu njënd meeg njaay mi si mim réew mi ngi dalal xel yi ginnaaw gi nga xam ne dañoo jëm ci ay xew-xewu diine yu ci mel ni màggalu Tuuba mu ngi dalal xeli bu baax a baax di xam le lu ëpp ñax fukki junni tonn ci soble goo xam ne dañu ko jéggaani moo nar a am ci marché bi ginnaaw nag li xewoon ca Tuuba ji soble bi te ñu yokkoon ko bu baax a baax luy tolloog ñetti junni ci ay saaku soble la ñuy yóbbu ci dëkk bu sell bi foofu nga xam ne service départemental bu commerce bi nag teg na loxo ay soble yoo xam ne daal mi ngi woon ci ay loxo commerçant yoo xam ne daal dañ doon jalgati bu baax a baax ñu des si wàllu soble si ba tey ak waa ñu jox ci kàddu Oumar Diallo bi ñu dénk jënd mi njaay mi si biir réew mi muy xamle ni ci tuubaa daal njëg yi dellusi na fa mu nekkoon te it muy lu xel mun a nangoo bu ñu jógee ci wàllu soble si ñu waxtaani wàllu mbënn mi ak na la ñuy def ba xeex ko suñu naataangoo yi ñu xëyee xëyandool tey di ñu xamle ne démb ci jàkkaarloo mag taskatu xibaar yi directeur général bu ONAS di Ababacar Mbaye dellusi na bu baax a baax ci na la ñuy def daal ba ndoxu taw yi mën a jóge ci bërëb jàll ci ab bërëb rawatina ci zone de captage mu indi ci ay saafara ne diwaan yi it kenn bàyyiwu leen gannaaw benn yoon Ababacar Mbaye nag di lu yenn jëfin yi nga xam ne jaaduwul dara yi ñuy amal ci réseau bu ONAS. balaa ñuy jàll ci wàllu tàggat yaram nag ñu jox kàddu gi waa DIRPA ñuy xamle ni Sénégal fi mu féete woon Mali ba tey teggiwul tànkam benn juróomi yoon ndax ci jamono ji luy tolloog junni ak ñetti téeméeri jàmbaar ñoo fa teew ci ab communiqué bu ñu siiwal démb nag waa DIRPA di xam le ne dafa am ay xibaar yoo xam ne wuute na lool ak li amoon yi nga xam ne daal moom lañ doon siiwal mu dénk ko suñu naataangoo yi ñu xëyandool tey jii bu ci mel ni le soleil mu ñuy xamal ne match yi jëmale ci championnat européen yi dooraan na ngir saison 2022 jàpp 2023 donte nag jaayam joueur yi jeexagul ci gaynde yi nag bu dee ñenn ñi dañoo jël décision ne dañuy des ci seeni club ñeneen ci ñoom nag changé nañu équipe ci jamono joo xam ne nag waa RTS ak waa E-Media ñoom ñu ngi xëccoo bu baax a baax kan moo war a génne match yi jëmale ci mondial 2022 boobulee ñu des ci coupe du monde 2022 boobu lee ak Sud Quotidien bi ñuy xamal ne Brésil fi mu toll nii daal dana jàkkaarloo ci ay jongante xarito ak Ghana ak Tunisie muy ñaati juróomi équipe l'Afrique yi nga xam ne ñoo na a teew ci coupe du monde boobule. ñu jeexale kooku wàllu lomb ak waa Soleil di ñu xamal ne tey jii ci gaaw gi nag waa CNG dinañu amal seen assemblée général ginnaaw ni ñu xamlee ne saison atum deux mille vingt et un vingt deux tëj nañ ko. ci fukki fan ak juróom bi ñu weesu suñu naataango yi di ñu xamal ne bile assemblée générale dina tax ba Bira Sène nag ak ñi mu àndal ci liggéey bi def seen bilan ak it xamal amateur yi nan lañ nar a liggéeyee ci saison bi ñu jëm ndaje bu yaatu bi nga xam ne nag ci arène nationale lañ koy amalee lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm bonjour présidentielle 2024, Sonko Karim Khalifa, ses candidats en sursis. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Candidat la présidentielle de 2024, le leader de Pastef, les Patriotes et maire de Ziguinchor devra se préparer à un véritable parcours du combattant. En effet, selon le quotidien du groupe Sud Communication, devenu la principale cible du pouvoir en place après Karim Meïssa Wade et Khalifa Babacar Sall, Ousmane Sonko va devoir franchir lesquels la très controversée affaire Adji Sarr, devenue en quelque sorte un serpent de mer que la justice sénégalaise a du mal à vider et les suspendue comme une épée de Damoclès sur la tête de Ousmane Sonko. Pour en revenir à Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall, le confrère de l'avenue Bourguiba rappelle que seule une loi d'amnistie votée par l'Assemblée nationale pourrait les permettre de retrouver leurs droits civils et d'être éligibles à nouveau. S'exprimant sur les antennes de la RFI et de France 24 en 2021, le président Macky Sall avait clairement exprimé sa position favorable à l'esprit d'une amnistie ou d'une réhabilitation à faveur de Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall. Seulement, depuis lors, aucune action dans ce sens. Et pourtant, la concrétisation de cet esprit d'amnistie ou d'une réhabilitation au profit de Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall aurait pu favoriser une redistribution des cartes au sein de l'opposition, pour ne pas dire un émiettement des voix avec la formation de trois ou quatre coalitions autour de Sonko, Khalifa Sall, Karim Wade et même Malick Gakou, un scénario qui serait beaucoup plus favorable au pouvoir comme lors des élections Au même moment, le configuration politique dans notre pays avec le déclin des configuration qui se dessine la suite des résultats des élections législatives. Les de siège à l'Assemblée nationale dame le pion au parti traditionnel. Au même moment et toujours dans les colonnes du Soleil, pour un apaisement de l'espace politique, le Forum de justiciables propose une loi d'amnistie. Babacar Ba et ses collaborateurs ont proposé ainsi un document pour faciliter la dite loi. Quittons la sphère politique pour nous intéresser au marché de l'oignon, tout d'abord avec le Soleil qui s'intéresse à cette forte tension sur le prix. La direction du commerce le Magal de en septembre, les approvisionnements sont calés pour mettre sur le marché plus de 20 l'importation, informe la direction du commerce intérieur. Le confrère, tout comme Sud Quotidien, signale qu'après la notée sur le marché de l'oignon à l'origine d'une forte spéculation sur le produit, sacs ont été réceptionnés vendredi à Touba. La veille, le service départemental du commerce a procédé à des saisies auprès de certains commerçants une conviction de Sud Quotidien. Avec le marché sous les producteurs en déphasage et l'État et les commerçants qui sont en rupture de banc. Omar Diallo, directeur du commerce intérieur, rassure toutefois, les prix de l'oignon sont revenus à un niveau normal et acceptable. Place à présent la lutte contre les inondations avec cette étude pour améliorer la capacité du bassin de la zone de captage annoncée face à la presse hier, Ababacar Mbaye, directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, l'a révélé. Les régions sont également prises en charge par ce dispositif. Au même moment, l'ONAS regrette des actes de sabotage. Avant de nous intéresser au sport, place à ces précisions de la DIRPA. Le Sénégal ne s'est pas désengagé au Mali où sont présents 1300 djambars. Contrairement à certaines informations parues dans la presse, l'armée sénégalaise réaffirme son engagement dans la mission onusienne au Mali, précise Sud Quotidien. La direction de l'information et des relations publiques des armées a diffusé hier un communiqué pour démentir les informations faisant état d'un désengagement de l'État du Sénégal au Mali. Elle fait savoir qu'une mauvaise interprétation des services en rotation est à l'origine des rumeurs véhiculées par certains journaux. Restons avec l'Astre de Anne qui signale que les championnats européens ont repris leurs activités pour la nouvelle saison 2022-2023. Pour autant, le mercato estival n'est pas encore arrivé à son mouvement de joueurs continue de s'opérer. Chez les Lions, certains ont pris la décision de rester dans leur club, tandis que d'autres ont préféré relever d'autres défis. Au moment où la RTS et Emedia se disputent l'exclusivité des droits de retransmission du mondial. 2022. Coupe du monde 2022, le Brésil s'offre le Ghana et la Tunisie. Écrit Sud Quotidien, cinq Africains la Coupe du monde 2022 de la FIFA Qatar 2022, à savoir le Ghana et la Tunisie, affronteront le Brésil, quintuple champion du monde, en match amicaux de préparation en par la lutte avec le soleil qui renseigne que le CNG est en assemblée générale Ce samedi, après l'annonce de la date de la fin de la saison 2021-2022 le 15 août dernier, le Comité national de de la lutte au Sénégal sera ce en assemblée générale à l'arène nationale. Ce sera pour le président Birasène de faire le bilan moral et financier des activités et de les perspectives pour la prochaine saison. C'est tout. À vos